joué mais Papis pas comprendre que ni ñuy wax euh, Sénégal toll noonu qu'on puisse avoir des problèmes de terre et que ñoom 5 à 6 pour cent rek lañ nekk di gérer c'est incompréhensible Bouba bismillah waaw der euh, bon da nga may may rek avant may commencer mhm. quand euh, jaale Ousmane Sow Ichar ah xam ne jaar na ci kër gi mais aussi nit bu amoon import ci culture mhm. Sénégal ak environnement ak politique ak lépp kilifa bu mag Euh, di ko di ko di ko jaale waa Sénégal jaar si suma yaay tudd Awa Fall euh, maa ngi koy ñaanal aussi euh, yàlla xare ko àjjana di wax que ni en fait en réalité man pense que su suñu dëkk yi problème bi ñu gën a am mooy problème de de vision parce que ñu ngi bëgg a jël mbay mm-hmm. pour mu gérer les premiers rôles ci suñu développement suba ëllëg te ñun amuñu amuñu vision parce que pour man bu ñu bu ñu desee ci wàllum euh, kii jël na soixante quinze hectares de plus que li mu jël on passe à côté lan la lan la euh, trois cent hectares war def ci localité bu ñuy exploité parce que dëkk yooyu ay dëkk yu ndaw la ñu ah. normalement bu fa mbay bu fa trois cent hectares bu ñu ko fa jëlee di ko fa exploité li war a njëkk a nekk mooy dafa war a feeñ ci ci localité bi. Mm-hmm. ñu gis ci seen bopp. mais mais ñun dañuy dañuy ay contradiction rek moo am Sénégal parce que dañuy gis nit ñi ñu ngi jógee ca àll ba. dakaar ñaata millions lañ waxoon yaa yaa quelques années léegi ñaata millions ñoo fi nekk ah. on était 400 000. c'est à 3 millions euh, à 1 million dans les années. léegi fu ñu léegi ñaata nit lañu. léegi on est à 3 millions 500. nit ñaa ngi jóge ci àll bi di ñëw. parce que tout simplement bu ñu amee vision moom mooy naka la activité yooyu mun a développer euh, localité yooyu. Mhm. te loolu pour man li ñu naan cahier de charge warul yem cahier de charge warul yem ci limitation wu euh, terre yi ñuy jël ay fii la war a yem ak yooyu mais dëkk bu ko def mooy amoo vision bu ñu bëggee suñu dëkk bi développé wu waxuma Dakar Sénégal mais su mooy da nga naan activité bu waree am ci dëkk bi lii la ci dëkk bi am mu nekk cahier de charge avant ngay daggal du ñëpp ñoo war a bay moi je suis si ñi nga bokk si ñi nga xam ne pour man ñi nga xam ne ci mbay la ñu juddoo màgg si yaroo si dañu war a continuer bay mais peut waratu waratuñu bay comme ni seen maam yi doon bayee mais pour ñu bañ a bay comme ni seen maam yi doon bayee mais foofu la état di ñëwee mhm. foofu la ki nga xam ne dafa ñëw ci benn localité jël fa 300 hectare projet bi ñu ko bi ko bi ñu ko war a njëkk laaj moom mooy que ñi dëkk ci dëkk bi nan lañ ciy teddee fii ak 10 mhm. ans 15 ans c'est un problème de de de pas ça c'est un problème de vision avant ñuy dugg sax ci waxu Babacar Ngom am ay ay ay ay ay coow yoo xam ne bu amee je pense que il faut ñu ñu dem plus loin suñu agriculture bi boo duggee wëree Sénégal mais bëri na ñu ñu jox suñu suñu pomme de terre bi te duñu ay sénégalais suñu euh, soble si ñu koy exploiter fii di ñu ko jaay di jël xaalis bi ñu ko jaay di ko exporter di ko yóbbu loolu manque de vision daf ko daf ko daf ko gën a rëy est-ce qu'on en parle non ñun dañuy focaliser wu jël émotion jiital ko teg ko ci kanam fekk sur le fond. Hmm. duñ ci taxaw lan mooy développer dëkk. lan mooy tax fii ak vingt ans su ma rombee euh, jas noonu ma gis mu développé. Hmm. pourquoi terre yooyu yëpp li Charles doon wax lépp mu vide mais parce que l'État n'a pas aidé ces gens la pour que ñu moderniser wu. valoriser ko valoriser ko mais hmm. moom laa lay wax nii bu ñu la nee da nga bëgg a jël 300 hectares. ci benn dëkk cahier de charge bi dafa war a dépasser ay limitation ak ñaata ngay fay par par par euh, par mètre carré. tey jii nii almadi bi ñu dëkk nii ñun ñii wala ñu nekk fii di liggéey benn mètre boo fi taf benn mètre carré bu nekk ay 1 million lay nga dem ci dëkk yooyu benn mètre carré ñu la koy jaay ñaata ay mais différence boobu dafa rëy lan moo ko indi moom mooy que si système bi ñuy joxee terre yi du ñu jël en compte localité yi. te bu ñu ci nekkee nii fii ak deux cents ans ces gens là du ñu mës a donc tey jii nii bu fekkoon ni euh, jël nañ trois cents hectares ñëw dem ci ci village yëpp ne leen ci biir projet bi fii ak trente ans yi tant de jeunes tant de nit ñoo ciy liggéey lii lay impact bi lay def économiquement ci localité bi mais kan mooy bañ loolu mais il faut pas qu'on s'arrête sur sur le fait de de jël ay ay ay ay ay kii ay euh, ay terre rek am na lu Pape mais en réalité boo jëlee pap Pape Babacar Ngom effectivement ci suis d'accord avec lui on va pas ci ay émotion rek jékki-jékki effacer lépp lu mu def diaboliser ko teg ko tam ko tam ko dëmm wax ko lu non c'est pas le problème ne pas là mm. ce n'est pas un problème politique mais c'est un problème quand même mm. te pour man munuñ bu ñu bëggee woowee suñu bopp Sénégal mm-hmm. te problème bi ñu ko régler moom mooy que li ñuy woote ñu ñu mais en réalité en réalité état nguur dafa war a jël exemple ci lii pour xool na la ñuy développer suñu mbay mi suñu mbay mi suñu bëggee ñu développer ko dañ koy développer ak ñi nga xam ne ay baykat lañu d'origine parce que amuñu doole kii yor tracteur di ko indi ci benn benn champ di ko dawal ah ute na ak mille cent personnes yoo xam ne dañu yore pick-up di gas te ñooñu ba léegi ñu ngi yore pick-up pelle léegi comment faire pour que ci biir cahier de charge bi bu nit ñëwee di exploiter ay terre ci benn localité dafa am loo xam ne dafa war a dellu si automatiquement ci localité bi te loolu warul yem ci ay déli ay délimitation de terre mm-hmm. il faut que ñu am vision suñu dëkk yi bu ñu bëggee ñu avancer il faut suñu mbay mi ñu moom ko suñu mbay mi léegi li ma la wax ni lu si gën a bëri ñun sénégalais moomuñu ko mm-hmm. xoole nañu ba étranger yi ñëw ko jël ko di ñu ko jaay di jël xaalis di ko yóbbu. booba li ci gën a graaw non li ci gën a baax lekkuñu ko man nee naa la dem naa waalo. non non non dañ koy yóbbu. déedéet conteneur yaa ngi fa taxaw frigorifié dañ koy yóbbu. déedéet yow waxuma yóbbu. Ah. li ñuy jaay fii. Ah. lu si gën a bëri étranger ñu koy jaay ñun ñu koy lekk. donc aujourd'hui quelqu'un comme Papa bu bëggee dugg si loolu dañ ko war a jàppale mais mais moom balaa muy dugg si dara war naa am benn projet de développement de localité yi nga xam ne foofu lay exploiter terre yi loolay waxi dëgg mhm. et je pense que wax fa dëgg yàlla coow li coow li coow li yëpp c'est un problème qui peut être réglé mais nañ ko réglé si beaucoup si ay si ay projet d'avenir parce que ñii ñooñu di fa pas yooyu nga gis si télé bi mhm. mais pas yooyu ku ci dundaat dix ans bëri na peut-être ils ont ay quatre-vingts ans mhm. nañ wante dëgg fii pour nga dugg quatre-vingt-dix ans bëri na parlons à leurs enfants oui. ak seeni i sët il faut ñu wax ak seen doom ak seen i sët ñu xam ni dans dix ans man mii dinaa nekk fii parce que tam xam nga des fois di nga nekk ci réewu taax yi am benn perception des choses yoo xam ne nit kii bu dee localité bi rek nga xam xam nga li ma la bëgg wax nga yeewu suba xam nga tracteurs yi ñëw affaire yi ñëw les gens aussi des fois ils se posent des questions te loolu moom mooy dëgg te loolu vision wu état la du ay fii dañoo xamante dëgg wax fa dëgg yàlla boo demee ci ci ci zone yu bëri ay politiciens ñoo fa nekk ay maire ak ay ay ay truc di dóor non di dóor dóorkat yi ñoo ci gën a bëri ci mbayu mbirum suuf si boo génnoon barke Seydina Limaamu boo génnoon listu ñi nga xam ne am nañu ay terre te ñu ay baykat te waruñoo bay nga yéemu ci yàlla mais pourquoi on n'en profite pas pour vraiment mhm. def diagnostic gu loolu suñu terre yi ñu nekk lan lañ ci exploité lan mooy projet lan la ci Sénégal yi gagné lan la localité yooyu gagné ba nga xam exode rural boobu ñuy wax mu mu mu arrêté. jël gaal bi mu arrêté. mais parce que tubaab yi léegi ñooy ñëw fii am seen ay projet seen ay ONG. donc ñu incité pour que ñu téye famille fii alors que nous même on ne développe pas yoo xam ne day téye suñu doom bu ñu ko arrêté ci ay ay 75 hectares pour man c'est benn manque de vision bu rëy la nañu leen ci taxaw ñu ne maintenant bu bëggee exploité suñu suñu ndengaleer xaw ma xaw ma nu mu tudd. Hmm. beneen jilax ah, wala jilax boo ko bëggee euh, exploité il faut que dëkk ba si seen bopp ñu xam ne dans dix ans am na ay perspectives am na ay projets yoo xam ne dina suuxat dëkk bi dina fa indi ndox dina fa indi courant dina fa indi école dina fa indi hôpital dina tax ndaw yi liggéey loolu moom mooy vision. waaye toog fi di di di xëccoo ay soixante quinze que ñu réglé ko après le fond na change jamais mais amul njëriñ. waaw balaa may ñëw ci yow xam naa bëgg nga wax ñu may malal tour de table bi mët ak honorable mais man damay ñaan yàlla cat bañ ma dugg